salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyooti di leen dalal jàmm ci biir seen émission ziar comme ni ñu koy defee doxantuwaat nañ ba si ñu beneen invité euh, seet si ko fas yéene sekk ak moom waxtaan alors tey nag ki ñu dalal du euh, kenn ku dul euh, monsieur Ousmane Noël Dieng moom nag la ñu dalal moom nag mooy chef de cabinet du ministre Diène Farba Sarr en même temps aussi mi ngi nekk président MJK DF2S donc monsieur Dieng ñu ngi lay nuyu dina dalal jàmm. Euh, maa ngi lay fay soxna yaa awa di la ziyaare di nuyu sama ustaas bi nga àndal ak euh, ñu ko teewee yëpp. alors euh, monsieur Dieng tey nag dañ la seet si parce que xam nañ ne ñu ngi ci wàccaay tabaski vraiment dem yeeg dikk yeeg bëri na ñëpp a ngi jóg daal nekk ci mouvance boobu. alors yow sa tabaski nan nga koy préparer parce que nag avant ñuy ñëw ñun nag dañuy saytu ci suñu invité mooy kan lan la def fan la jaar affaire yooyu donc tey xam nañ ne. da ngay yëngatu lu bëri ci social te ku wax tabaski vraiment wax li nga xamante ne mooy social alors loolu tey yow nan nga koy dundee. waaw yow vous savez que tabaski benn weer bu sell la. Mhm. ñu ngi ci weer boo xam ne weeru jaamakatu yàlla la. Mhm. waaye moom mu doon tabaski mu doon feet boo xam ne aussi feet bu doy waar la ci borom kër. Mhm. feet bu gaaw a génne coono borom kër la waaye feet bu gaaw a génne complexe la bu doy waar laa ko mun a waxee. ba tax ne je pense que yàlla ku mu jox lu bëri daf la séddaloo. ndaxte yàlla nag moo moom ay mbiram mooy def lu ko neex. mooy jox yaawa am lu bari jox oustaz Modou Fall am lu tuuti. jox Ousmane ne du ko jox dara. ba pare cinéma tey mooy def lu ko neex. et donc nag jox la yaa awam lu bëri taxul nga gën kenn mooy xool ay magasin di ko xool di ko jox. léegi nag ah yow mi mu jox te xam ne gënoo kenn lu tax mu jox la te tàgguwul kenn mhm. ah loo mën rek mooy bokk kook yàlla. su mën ne bokk ko yàlla nag may dégg bu la yàlla ñëwalee da ngay fexe ba jox yàlla yàlla bu mënoo ci génne jaamam yàlla yi mm-hmm. ndaxte jaamam yàlla yi yàlla amul lu ko ëpp yàlla amul lu ëpp jaamam yàlla yi ñoom la gën a fonk mm-hmm. ñoom la gën a bëgg mm-hmm. ak luñ ko luñ ko tooñ tooñ nag lu mu leen mere mere mere ay jaamam lañ yoonu kenn newu ci donc loo mën a mën ci feet bii nii jaamu ci yàlla dimbali ñi ñi te yàlla rek tax te yàlla rek tax damay oo ñëpp nañ ko def parce que weer bu sell la weeru ndimbal la weeru jàpp parce que ku si nekk mos nga veille tabaski di kërti kërti je pense que ku mus a am rek ñàkk nga ku si nekk mos nga kërti kërti ku si nekk ku mel ni man jaar naa fu ne mos naa location lu mu war ko fay le cinq di jot nga stress mos naa veyu tabaski ni mu mel nga war a xotti nan lay mel mos naa xaru tabaski ànd ak sama papa ñu dem lépp mos naa ko et donc euh, xam nga xam naa la mu saf la mu saf kooku macce ko xam et donc loolu foog ñu dimbali nit man nag li may def muy politique ñu euh, ko gars yi defee man dama ñëw changé ko ci kàttanu yàlla. ci naka dama ko changé bu njëkk politique dañ dem o oh, ñu ñi oo oh, suñu yaay yi jox leen ay xartum yëpp leen ci kaar di def ay thé débat teg café teg naan politicien bu ñëwee ne maa fa bàyyi cinquante mille <laughs> njëgu singom njëgu tàngal. Mhm. man ba may dugg ci politique en 2015 dama taw sulu ci yàlla dama dama signé ak yàlla contrat te li may wax ni je pense que discours boo xam ne la ñëpp mën nañ moo tax wala caméra yi ñëw a tiim sama discours boo xam ne la boo tapé youtube di nga ko dégg mille fois mm-hmm. dama signé ak yàlla ma ne ko yàlla su fekkee lii may dugg kii di politique wax mbooloo mm-hmm. ah, ku wax mbooloo xam ne ñii dina la aussi dina la sonn si dina la ñëw naaj bu tàng bi stade dugg ci kaar yi ñëw sonn ci yow mm-hmm. et mën a yow yàlla nag lii ma nar a dugg nii mu terrain bu glissant monsieur le ministre Diène Farba Sarr mi nga xam ne dafa am confiance ci jeunesse bi gis ma bëgg ma ne ma dama la bëgg euh, nga ma kaw lax nangaan sooxe na donc ah, sa base Kaolack la sama base Kaolack la mais waaye mi ngi jéggi Kaolack ndaxte ñëpp a ngi bëgg ñëw ñëw adhéré ci mouvement NJKDFS sant suñu borom mm. et donc euh, ba ma waxee loolu ma ma ma jàkkaarloo yàlla suñu borom te yàlla kenn du ko sosol ma ne ko yàlla maa ngi lay ñaan ci daraje yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su bi may def dama ko dugg euh, am mbooloo nax jaamam yàlla yi comme ni ko politicien dem defee <laughs> indi leen yóbbu leen sonal leen ba pare nag nax leen yàlla maa lay ñaan nag yow mi nga xam ne yaa mën lépp yàlla bu ma ci yi est-ce que hmm? billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa ma ne ko yàlla bu ma kenn dégg yàlla bu ma kenn xam yàlla bu ma si am dara si daraja yonent bi sa alayhi wa sallam ma ne ko yàlla su fekkee xam nga sama xol bi nag hmm. su fekkee partage moo ma tax a jóg su fekkee jaamu bi yàlla yee ma tax a jóg ma ne ko feek at yàlla nga ma taal ba Sénégal yi di dégg Ousmane Noël hmm. ci barki yonent yàlla Muhammad sallallaahu alayhi wa léegi nag soo ma xamaloon doo ñëw fii je pense ak say caméra di ma <laughs> jël su fekkoon maa ngi ci maa ngi ci logique boobu noonu <laughs> waaye su fekkoon maa ngi nax yàlla yàlla xam na mm-hmm. et donc am na ñu ma njëkk politique <coughs> gëm-gëm la am na ñu ma si njëkk fuuf mm-hmm. am na ñu dem fuuf peut-être la ma ci nekk nekkuñ ko ca te jii su ma su ma dem ci ay nit di uti nit comme ni ko gars yi defee proximité. Hmm. dem uti nit yi. ci nit ñi. wax vraiment comme tey débat yooyu nga doon. wax woo mbooloo mi ñëpp génn. man na yàlla suturaal na ma bu leen ma falee bu leen ma falee. man na yàlla suturaal na ma saa ma toog nit ñi ñëw ay mbootaay jo dañ bëgg jàppale Ousmane. di wax lu leen neex chaque jour que jëfee ma jot presque dix mbootaay quinze mbootaay jeunesse bi association yi ñëpp dañ bëgg jàppale loolu nag yàlla koy def. dëgg la te yàlla naxul kenn. Hmm. dëgg la yàlla naxul kenn. Mhm, mhm. donc je pense que loo def ci yàlla mu delloo la ko. Mhm. loo def ci yàlla nag mooy jaamu yàlla yi da ngay dégg yàlla rek. wallaay loo def ci rek yàlla mënoo ko defal dara. sa julli ci yàlla def naa ci vidéo mu def ci ay vues yu bëri mu doon bu doon bu doon un président boo xam ne un président généreux mhm. un président engagé déterminé qui aime son pays un patriote mhm. man Ousmane Noël euh, mi nga xam ne je fais partie des Baye Fall di la liggéey liggéey bu rëy ca Kaolack nangaan monsieur le président maa lay ñaan lépp loo mën a def ba yombal mbir mi ba jàppale borom xar yee jaay. ba mhm. ba xar yi mën na yaxanal ba borom kër bu ne mën a am xar cinquante mille. ñu commencé cinquante mille laa wax nii. président Macky Sall ñu la koy ñaan nga def ko parce que mën nga ko yoola yàlla di nga ko doole kon doole jooju la ñu ñaan nag nga jëmbalal ko borom kër yëpp ñu am xar à part de cinquante mille ba cent mille ba ku ne loo am ko ñu ngi koy ñaan ci barki yundu sallallahu alayhi wasallam yàlla ñu ko yàlla defal amin amin je pense ko a euh, ñuy tëj rek wala ñuy jox oustaz euh, tey ban anecdote loo dund tey nga xam ne boo ko fàttalikoo dalay def ay ree ci tabaski nga dund ko mën ñu ko partager ak téléspectateurs waaw tabaski dama mosoon am ñu ne woon boo reyee xar xaw ma xari bi waccaxu sa <laughs> ndigg bi day ko quoi ah. mais keroog na xaw naa de je pense que xar bi dafa ma yokku ndigg waaw mit dafa ma yokku ndigg waaw parce que euh, sam pap macha allah moom euh, ñun nag riche ñu amuñu amuñ du ñu woon du ñu famille bi riche ci mm. xaalis ci mm. zaahir mm. waaye gis nañ ci yàlla suñu papa dañu jàngal daf ñu xamal diine mm-hmm. xamuñu lislaam teel a xar suñu dënd daf ci laa ilaha illallah muhammadu ba dara mënuñoo impressionné mm-hmm. xam ñu xam loolu moom dara jël xar yu baax di ko rendi mm-hmm. léegi ma am problème ndigg bu métti nag boobu maa ngi leen doon xale xar mi di wàccee ko rek ma teg sama ndigër mais dafa xosiwaale ba yokkaat yokkal ma sama ndigër te te da koy faj te daf <laughs> métti na daal méttoon na trop mais tey ji bu ñu demee tey bay toog mm-hmm. di jàppale di ci am suñu wërsëg ñu yàlla joxe mm-hmm. ci ndigalu nag la ministre Diène Farba Sarr yaawa mm-hmm. yaawa euh, dama nekk ak ministre boo xam ne ku ñàkk ñaan la koo xam ne dafa effacé wu koo xam ne dafa loyal il est avec le président Macky Sall depuis 1998 est-ce que nekk ak moom primature nekk ak moom euh, assemblée nationale nekk ak moom euh, fu ne tey Sénégal boo déggee Ablaye Wade ba Macky Sall nekkee euh, premier ministre daf ne ba Macky Sall ñëwee la sama chantier yi génn. Mhm. amuñu ko nekkoon ci gannaawam. te mu mhm. nekkoon ci gannaawam. c'est le ministre Diène Farba Sarr depuis primature. Mhm. depuis assemblée nationale génne chantier te Sénégal bu xamee autoroute à péage. c'est président Macky dafa am confiance ci Diène Farba Sarr. tey autoroute à bu amuloon. centre Abdou du am. aéroport du am. loolu yëpp bi nga xamee Diène Farba la ci liggéeyam ci xarañam. a dem. waaw euh, wax dëgg yàlla liggéey na fi liggéey mucc ayib am confiance nag si jeune bi ma mhm. bëgg Sénégal ñaanal ko yàlla lii président dénk ko muy euh, pôle urbain mhm. euh, bu jëm ñaajo di ci haut développeur yëpp ndax ne c'est une nouvelle ville mhm. ñu bëgg jëm ñaajo mel ni la défense de Paris ah. mel ni New York City mel ni Washington DC donc jëm ñaajo projet bu Macky Sall la waaye projet Sénégal yëpp la ak Lac Rose na ko ñëpp ñëw wax dëgg yàlla jàppale la ministre Diène Farba Sarr wax dëgg yàlla pour Bouna Diamniadio mën a dem kanam mhm. pour Lac Rose a dem kanam mhm. pour Sénégal mën a jëm kanam c'est un bon ministre jeex na macha allah ah message jàll na de jàllati na sax laay wax <laughs> monsieur Diène may rey voilà donc euh, chers téléspectateurs avant que nag ñuy joxe suñu teraanga yi nga xam ne moom la ñu indil suñu invité dañuy bàyyi oustaz rek fi mu yemoon démb mu daal di continuer waxtaan bi oustaz alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bi nu santee yàlla sunu boroom julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu sunu soppe bi nga xam ni moom la ñu dalal tey muy Ousmane Noël Dieng di ko baax ñaanal ko yàlla moom itam yal na yàlla yokk teraangaam ci daraje sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni mbokk yi dellu waat nañu ci sunu émission ziar démb maa ngi doon waxtaan ak yow ci façon xar yi nga xam ni mënul tabaski léegi nag gannaaw ba ma la waxee xar yi nga xam ni ñoo mën a tabaski léegi nag yaa ngi songu bisu tabaski waaye avant ngay songu bisu tabaski dafa am bis bu dox ci diggante bi ñu di ko wax taxawaayu arafa di bis boo xam ni bis bu am solo la ci lislaam bi bis la boo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni ku ko mën a woor na nga ko woor muy bis boo xam ni li ci nekk ci ay ngëneel bu nu ko xamoon ñun ñëpp daañu ko woor léegi nag boo rombee arafa yaa ngi dugg nag bisu tabaski bisu tabaski boobu nag boo xëyee dafa am fu mu tàmbalee mooy nanga am yéeney dem julli ji boo mënee woor na nga woor waaye koor goo xam ni mi ngi tàmbalee ci boo xëyee ba keroog ngay julli ji ba ñëw boo jullijee ba ñëw nag doog a dog sa koor nanga bàyyi xel yow mi am xar te war a rendi sa xar pour tabaski mënoo rey sa xar mukk te imam reyul xaram ba pare képp koo xam ni jiitu nga imaam njëkk koo rey amoo tabaski jàkk jëla gën a jege na nga laajte bu imam ba reyee nga doog rey waaye nanu xam ni itam jàkk yi jàkk yi yàlla la wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahadan am na ñoo xam ne dañuy romb jàkk ne jàkk ji jàkkay laayeen yi la wala yii jàkkay tiijaan yi la wala yii yu murit yi du ma fa jullee génn daw ay kilomètres jaru ko jàkk ji la gën a jege jullee fa ta xam ne jàkk yépp jàkka yàlla la kon mënoo rey te imam reyul ba pare waaye boo ñëwee nag balaa ngaa rey na nga xam ni rey gi dafa am yoon nekkul rek nu mu la neexee noonu ngay reyee mm. bu ko defee loolu itam ñu bàyyi ci xel incha allahu ta'ala suba danaa la wax boo tëralee xar mi nan la war a féete booy rey loo war a wax ana yéene bi fan nga koy dugalee incha allahu taala danaa la ko wax waaye di leen fàttali yéen ñëpp nañu bàyyi xel dimbalante ci wàllu tabaski bi yéen ñi yàlla dénk teraanga gestu leen ñi nga xam ni amuñu ngeen bàyyi leen xel mm. Ousmane Noël Dieng yi nga xam ni wax nañu ni ci social lay dox ndax oustaz Pape ann yàgg na kaa tudd mm. di wax ay teraangaam ak ay mbaaxam yoo xam ni ma ngi koy def ca Kaolack waaye di ko def ci réew mi yëpp kon maa ngi ñaan yéen ñi yàlla dénk teraanga gestu leen seen dëkkandoo yi xam nga ren màkk amul mm. ñi daan dem màkk ñëpp ren fii la ñuy tabaskee insha allahu taala ndax aj gi amul mm. yéen ñi daan fere 4 million ba 15 million di dem màkk nangeen xam ne seen màkk gi am nga am ngeen fu ngeen ko def mm-hmm. ñi amul xar jaamu leen yàlla ci ñoom jaamu leen yàlla ci mbindee fi yàlla yi mm. bu ko defee loolu mooy waxtaanu tey wi mm-hmm. subaak jàmm insha allahu taala danañu leen wax nan la ñuy rayee ak la nga xam ne moom moo war a am lépp ci bisu tabaski bi suba lay doon incha allahu ta'ala wasalaamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuhu. jërëjëf oustaz leeral yooyu am na solo alors ñun nag duñu dem te vraiment ñi nga xamante ne ñoo ñu accompagner ci émission bi muy suñu ay sponsor ku ci mel ni diwlin j'adore nee naa leen. enrichi en vitamine A 0% de cholestérol la gis nga huile de tournesol la waaw j'adore ça diwlin bu baax la ay ca <laughs> mi bu ñu paree ci loolu nag dañuy jàll ci boisson originale moom naa naa leen da ngeen di naan jus ba pare daal di lekk fruit oustaz loolu am na solo de xam nga yooyu yow day baax ci sa yaram ndax waaw kay eh. ñoom original ñii nag waaw euh, nan ñu bàyyi xel ñun ñii di wax ci ñoom bisu tabaski suñu kër yi original lañ war a naan. oustaz xam nga ne original day ñëw. incha allah oustaz original. waa original dégg ngeen. ak caméraman yi ñëpp naan ci original. ak ak diwlin j'adore ak Ousmane Noël Dieng mii ngeen jox ko ci original <laughs> original gi daal ñëpp nañ ci naan ba mu des <laughs> Pape donc jus daal jus yi dañuy naan ba doyal. naan ba doyal diwlin ji moom la ñuy toggee. jour tabaski waaw moom la ñuy toggee Abdou Aziz Ndiaye ñu ngi lay xaar ñun ñëpp <laughs> incha allahu taala. oustaz dañ laa jalis nii. ayca voilà di remercier aussi ki nga xamante ne mooy opérateur Free Free nag nee naa leen moom dafa ñëw indi lu am solo muy euh, sa calpe donc calpe bi nag euh, mën nga euh, envoyer comme jot xaalis te doo fay dara zéro franc la lay dikkee donc loolu yëpp nag Free moo leen ko indil mën ngeen am application bi mu ngeen demee télécharger ko ci App Store wala Play Store. Euh, mën ngeen yéen ñi nga xamante ne nag yéen a nekk free mën ngeen def dièse 150 dièse donc loolu yëpp nag free moo leen ko indil mën ngeen ci fay seen ay facture courant bépp transaction bu ngeen xalaat ni rek euh, vraiment calpe boobu mu ngi koy def donc dem leen euh, ca free am na solo te fri daal temps yi defe naa ne moo teg tànk daal ci dëkk bi. moo teg mooy def buzz. <laughs> Aïcha voilà donc monsieur Dia. ginnaaw waxtaan bi yëpp lii nag suñu ay teraanga la suñu ay sponsor ñoo la ko. ñoo la ko jagleel waa jus original ak diwlin j'adore. comme son nom original. jeex na original. j'adore je l'adore. ah déggal lii <laughs> waaw. nga ne lan oustaz. Euh, yàlla teraanga Euh, original moom comme son nom original. original dafa original comme son nom original waa ngi ñëw. diwlin j'adore ku ko moom di sama mbokk taalibi Tidiane. dëgg la muy Abdou Aziz. ñaan na ko Cheikh Tidiane téye. amiin ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Euh, di wax ne loolu koy àdduna. Mm-hmm. yow kontaan mm-hmm. man tamit. du ma bàyyi noonu mhm. dinaa fexe ñun tamit incha que yow tamit xam yéen a ngi dox si lu rafet mhm. dox si social mhm. sama politique yëpp loolu sama priorité politique mooy jàkka mooy xale yi jigéen ñi amul dara mooy néew doole mooy dimbale soo ma waxee loolu rek yee nga sama kii yi donc man tamit dinaa jël sama lu néew su ma sañoon adduna bi yëpp maa leen jëndal xar barki Cheikh Tidiane ñëpp yéen bi rek rafet na yàlla xam na xol bi innamal a'malu binniyaati billaahi wallaahi taala et donc Euh, li may def ci Kaolack fi mu toll ñëpp gis nañ ko. mi mhm. ñëpp may xaar ay junne junne nit. dinaa jël man tamit euh, lu toll ci ñaari xar. Ah. addel ko ci yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bariwul déedéet déedéet nga joxal ma ko ñoo xam ne ñu ngi leen yaakaar. di taxaw bu ñu teefee ñooñu tax ñuy sonni de wallaay wallaay nga jox leen ko. Mhm. incha allah dinaa fëggit monsieur le ministre Diène Farba Sarr. Mhm. mu génn xar. incha allah nga nga nga joxe ko. jeex na sotti ceeg def ci la donc loolu la quoi. donc yal na yàlla barkeel. amiin di sant aussi suma xarit. sama sëriñ oustaz Pape Anne. ah yal na yàlla guddal fanam suñu oustaz la waaw may ko wér ak wér la ci barke Cheikh Tidiane. kooku suñu xarit la ñaanal oustaz na gaay suturlante mhm. nañ bàyyi wérante bi nañ suturalante yàlla ku sutural jaamam mu sutural la man satara musliman satara wallahu yawmal qiyaama nañ suturalante nañ suturalante yal na yàlla indi sutura président Macky Sall yal na may ndam monsieur le ministre Diène Farba nga am ndam yal na am jàmm bonne fête macha allah bisam loolu merci beaucoup monsieur Diagne ñu ngi lay gërëm ci dalal bi ñu dalal di remercier aussi oustaz ci waxtaan bi nga xamante ne waxtaan bu am solo chaque fois mu koy amal ci biir émission ziar ñun nag fi la ñuy jaare di tàggoog yéen chers téléspectateurs di leen jox rendez-vous ba demain incha allah et d'ici là portez-vous bien au